ci semaine bii ñu jëm incha allah dañ ko topp par dix person par dix par dix personnes. Mhm. ba li nga xamante ni moom lañu ñu ñu goqi ko. Mhm. wax ba tuddal la quatre personnes xaw ma trois personnes yi daw waaw mais lan lañ bëggati. am na leneen loo xamante ni moo war a jiitu te ñu ngi koy dox. mais quand même xam nga ni question sénégalais c'est légitime quand même. waaw mais dañ koy d'accord dañ koy nangu. Mhm. mais du tere tamit bu ñu leen tontoo ci tontu bi nga xamante ni dëppoo naag li nopp mën a dégg. mais dañ koy nangu. président Ousmane Sonko jàkkaarloo na ak ñoom mu yéex mu gàtt mu gudd. mu yéex mu gàtt mu gudd. képp koo xamante ni loru woon nga. ñala lor danañ ko jëflante ñoom. alal juñ fi sàccoon bu soobee yàlla alal jooju danañ ko delloosi. le numéro 9 ou le numéro 7 nag. numéro 9. numéro 9 ak damay dama junj noonu rek. <laughs> ak keneen ka ca wetamoon yoroon tëll tëll yooyu mais yoon teg na ko de côté. waaw hmm. ah? am na loo xamante ni am na loo xamante ni doo ñëw doo ñëw ci plateau naan voilà numéro 9 bi xam nañ ko léegi kii la bon soit ñu ngi koy topp feeñagul wala boog topp nañ ko ba xam nañ fi mu nekk déedéet mm-hmm. mais numéro 9 boobu mënuñoo rëcc mm-hmm. Samba saga maam mbay ñaa waaw ak ki nga tudd léegi le directeur là bi nga xamante ni Seydou Kane Seydou Kane ñoom ñoo mënta rëcc ba ñu xam fa ñu nekk Mame Mbaye nee na dafa nekk vacances mais léegi mu ñëw. non waxul vacances. Hmm. la mu wax tontu ko. Hmm. jaarale ko ci ma dégg ko ci Salma. Hmm. mooy ni dafay mottaliwaat am njàngam. moo tax mu dem Canada. waaye yow yow nga am sens su nekk ministre pendant ñaata at. nga am possibilité. ci nekk gi nga nekk ministre. nga mën a jël professeur buy ñëw sax di la jàngal sa kër. ba li ngay bëgg nga am cours en ligne wala ngay def cours en ligne defuloo ko mhm. nga xaar ba nga xamante ni yow def nga tooxi a bëgg a daw làqatu ji mhm. naan damay dem pour jàng mhm. dana leer sàmb mm. dana leer mais daal numéro 9 ak numéro keneen ku mënti doon mm. jàpp leen ni état bi maa leen ko wax ñu ngi ci te du ñu ci dañ te gis nga balaa muy yàgg danañu toog ne loolu dossier boobu romb nañ ko dossier boobu romb nañ ko nan lañ koy rombe mm. Ousmane Sonko du tëj kenn amul sañ-sañu tëj kenn président Diomaye du tëj kenn. waaye procureur moom dana leen topp kenn ku nekk ah, sàmb est-ce que xam nga ni oppose oppo ñii du ñu du ñu neex a opposé de. ñan ñii nii. ñii nii passif. Hmm. du ñu neex a opposé de. lu tax nga ne du ñu xam nga lu tax du ñu neex a opposé. Hmm. parce que ñi ñi ëpp ci ñi ñuy yaakaar ni dañuy opposé ay sàcc lañ. ah mais terewul ñu ngi yëngal seen gouvernement bi bay déposer motion de censure waaw non dañoo dañu def action ñun. Hmm. ñu tontu ñu rek ñoom ñun la ñuy topp ñoom bu ñu nee tekk ñu ne tekk bu ñu yël boo ñu jóg yël bu ñoom tamit waaye dama la bëgg a waxal ne tey jii. Hmm. bis bu ñu commen <laughs> gis nga lii ñuy laaj nii lii téléspectateurs yi di laaj. Hmm. ñoo leen ko gën a yàkkamti Ousmane moo leen ko gën a yàkkamti. parce que mbir la moo xamante ni dafay régler borom làmmiñu rëy yi. jubadi gi. day régler borom làmmiñu rëy ba nga xamante ni. da gis nga ko ci xëy suba ba ngoon di jaabante ji ci bureau procureur da nga tal leneen lu dul taxaw di expliquer ay détails mhm. loolu moo fi nekk mhm. te loolu jërul yàkkamti Samba mhm. assemblée nationale bi dañ koy auditer assemblée nationale bi bii dañ koy auditer maa ngi dégg sax ñu ne Samba saal bañ fa def sa oto yi dem na garage ah oto yi dem nañ depuis biig ci guddi la depuis biig ci guddi lañ leen wax ne leen benn oto bu mu des oto yi kay mu ngi dellu benn par benn loolu rek won na leen ni am na fu ñu waaw lu ngeen jublu ci oto yi. mais lu ñu jublu ci oto yi atalu alalu askan wi la nañ ko delloo nañ ko delloo fi nga xamante ni fa la askan wi yëpp ci guddi lañ leen bind na leen dem leen ngeen jox ko ka nga xamante ni mooy chef de garage bi. Mhm. demal nga gëstu li ma la wax. léegi nga ne dañuy audit audité assemblée. assemblée nationale. lépp lu ñu de waaw euh, bokk nañ question yi jomaay duggal sax. ci section extraordinaire bi. non dañ koy dañ koy audité Samba nañ nañ audité gestion état 2022. salle bi lan lañ fa def. mais Guy Marius Sagna période lañ ko defoon Guy Marius Sagna interpellé le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop nee na ko yow chaque année da ngaa war a def benn bilan ci fonds politique yi ñu koy jox mhm. mais mosu koo def Guy Marius Sagna wax na ko mhm. même le caissier de l'Assemblée nationale aussi mosu def bilan c'est que loolu mooy problème section extraordinaire gars dañu naan toog presque dix ans daawul am mhm. loolu la leen jomaa indi loolu rek la loolu mooy rupture loolu mooy jub juba c'est que daal li may wax mooy gis nga Samba li may gis nga ñun daal nañ ànd ak dal ak confiance envers Sonko mooy jabaa jabaa di Sonko gis nga nit mënut a jaar ci benn trajectoire ba pare dund ko toog ñu dénk ko mu war a mu war a mu war a defar Sénégal nga ne ko noonu li nga nekk nii du urgence l'urgence ailleurs la mooy la mooy nañ traqué nañ jàpp ñi xam ni ñoo yi nangam nangam quatre-vingt et quelques personnes booy yi loi bi nañ ko abrogé mooy amnistie bi expliqué yooyu yëpp ay lu ñëwagul la quoi gis nga moo développement c'est mais yow yow yow mi nekkoon nag prisonnier yi yow mi dem ci famille victime yi euh, du ñuy teg pression ci yow pour que quand même justice soit fait pour ñi faatoog ñi ñu tëj arbitrairement yeeg yooyu yëpp mais chaque jour chaque jour déggool ma nee bi may bi may ñëw nee bi may ñëw rek nit wax na ma ne ma jamaay dafa yeex lan lay xaar na tëj gars yi gars yi ne mérite pas la vie c'est que à chaque fois que jëfee gis nga bon euh, li may wax mooy gis nga man yàlla dafa dogal bi ma génnee ma ànd ak ñoom Guy Marius Sagna Fatma Mbengue ak Sinthiou Thioro def semaine de la libération bi mooy dem ci famille des détenus politiques mais aussi dem ci victimes yi ñoo xam dañ leen faat étape Mbacké Daaru Muxti Kolda Ziguinchor Tanaaf yëpp dem nañ fa mhm. mais soo xoolee gars yi naq yiñ dund maanaam dégâts collatéraux yi am dafa doy waar mhm. nga xam ne gars yi affaire yi dem na même au delà même de l' aspect humain quoi en fait da nga lii lan la lu tax àddina est ce que na lii mais gis nga dund googu. ñoom lan la ñuy dund instant ci métit da gis nit ko xam dañ ko faat mu bàyyi ay tout tànk si ginnaawam nit ko xam ne soutien famille loolu ñu faat ko nit ko xam ne tëj nañ ko kaso jabaram dem na yaay moom la yaakaaroon pap moom la yaakaaroon am ñoo xam dañuy tëj kaso Guy Marius Sagna wax na ko bi mu ñëwee Mbàkke bi mu ñëwee am na ay famille détenus yoo xam dañ faa dem seen ginnaaw la seen soxna amee amee tout tànk mais Pastef taxawu leen jàppal leen bañ génti leen mhm. yooyu yëpp ñun gis nañ ko dund nañ ko biñ ñëwee l'enfer carcéral bi jógee biir Rebeuss dañ ko dund ak ñoom aussi booy bi ñuy ñëw suñu kanam bi ñu leen def mandat dépp ñu ñoo leen accueillir ay cas de torture yu extraordinaire booy xam dañ leen dóor ba damm leen am ñoo xam dañ leen dóor ba ba seen tànk déboîté wu insulte yooyu ñi xam dañ leen nag dóor dóor xam ne nii biñ ñëw mënuñoo toog ñu tëdd yooyu yëpp sécurité urbaine moo ko def yi yenn bavure policier yi la explique yooyu xam nga yooyu yëpp dafa am mais dama ne comme que loi bi dañ ko abrogé te sàkkuñ ko woon ñun bi ñuy def amnistie ñun sàkkuñ ko woon ñaanuñu amnistie Macky Sall moo jekk a setal léegi nag kooku loi bi dañ ko ab dañ dañ dañ ko dañuy def amnistie porté abrogé guñ ko man damaa jàpp ne chaque chose en son temps parce que soo xoolee président Ousmane Sonko dafa dikk ne nañ indi rupture c'est-à-dire dañoo indi une révision institutionnelle surtout nag judiciaire ñu ñëw ci les assises de la justice assises defar nañ ko càmbar nañ ko dénk jox nañ ko président président nee na lépp da koy validé mais loolu aussi dafa am benn processus bu mu war a jaar mhm. parce que soo xoolee le le le juge des libertés am na ci assises yi le la détention am ci am na ci assises yi soo xoolee retour de parquet problème retour de parquet bi mu noonu am moo xam ne nii retour de parquet wax dëgg yàlla ah, c'était anticonstitutionnel constitution bi moom moom dañ ko daan def man bokkoon na nga xool la responsabilité du magistrat amul woon mhm. amul woon yooyu yëpp dañ ko tënk ci benn règlement boo xam ne nii wax dëgg yàlla suñ ko mettre en vigueur gëm naa ne Sénégal gu tawfeex lay am Sénégal gu naataange lay am mais et puis nooy abrogé loi boo xam ne Assemblée nationale bi amoo ci majorité yaa ngi gis si président Diomaye bërki démb lañu rejeté benn projet de loi am bu mhm. bëggoon a dissoudre ñaari institution yi ñu ne ko du ci dal kon ñiy yàkkamte daan dañ dañ dañ dañ dindi amnistie amnistie bi dindi ko duy noonu du caaxaan amnistie faaw ñu am une une assemblée digne de ce nom une assemblée représentative mhm. boo xam ne nii moom mooy teewal askanu Sénégal mhm. boobu nag wax dëgg yàlla su jotee damaa gëm ne Ousmane Sonko wax na ko nee na man photo martyr laa teg sama bureau lépp lu may def damay toog di leen xool même su may signé dara damay toog di leen xool. Mhm. mais loolu képp koy def kon bàyyi na moom charge yi xam ne moo nekk si ginnaawam mais damaa bañ ñu ñu ñu ñu danser plus vite que la musique c'est-à-dire président Ousmane Sonko li mu dund ci injustice man gëm naa man Diop Taïf dund ma ko doonte am naa trois mandats dépp man gëm naa ne ko keneen dund ko parce que li ñu ko teg dafa métti te gëm naa ne loolu lépp da ko jointal dafa ñëw pour réhabiliter les sénégalais mu ñu boole sénégalais yi instant bii ci boole sénégal ci lañ toll chaque chose en son temps nañ bàyyi. gars yi déroulé. yow fi mu nekk nii ci ban régime nga nekk liberté provisoire wala dañ la xëy rek. man dañ maa acquitté man dañ maa relâché. man. ah dañ la atte yow. Hmm. waaw man. dañ maa atte ne defoo dara bàyyi ma dem. li fa def yëpp da ñëw. Ah, taxaw ci kanamu juge bi mu ne la defoo fi dara dañ maa relaxé purement et simplement. mais li may naqar mooy sama bagage bi léegi jotuma sama portable beeg sama xaalis beeg lépp jotuma ci fi ñu ma ministre de l'environnement yor nañu presque treize mois kenn fayum ba léegi mhm. xam nga loolu ay lenteur nit a jot papier papier jugement xam nga loolu dafa extraordinaire ay lenteur la mhm. yooyu yëpp dañ ko foori jëlee parce que suñ ko jotoon ñun au moins danañ mën a poursuivre l'état du Sénégal donte amnistie bi am na wala ñu jël loolu déposé ko au niveau du ministère de l'environnement ñu indemniser ba mais mënu ko def ñun ñi ñëpp suñuy bagage suñuy téléphone yi si bari mi ngi ci ah. loxoy police yi. imam tey ñëpp a ngi wax tas assemblée bi. Mhm. mais bu ñu tasee assemblée bi après après. Hmm, après lan mooy xew lan moo war a xew. lii xew président mooy gérer léegi ba ba ñuy teg tëral élection yi jeex na leneen amu fi gis nga lu dul alquran. dañ kon ci élection lañ jëm. man ni lu ah way dañuy dem élection. Hmm. lu def leneen mënuñu bàyyi assemblée bi noonu mais lu dul alquran dañ koy xoolal dañ koy changé. Hmm. dañ koy teg ci table bi changé. dañuy dem assemblée dañuy voter dañuy dañuy dem élection dañuy dem élection man j'aurais préféré nag ñu. organiser référendum ñu ñu couplé ñaari élection yëpp. waaw imaam lu tax nga bëgg ñu couplé ko. waaye yow maire yi. non bàyyiwaat leen ba trois ans bàyyiwaat leen ba trois ans wóorul. <laughs> maire yi bëgguma ci sari di waxati. ah déet imaam kay boo nee dañuy couplé élection yi nag. waaye mani. faw ñu laaj la pourquoi nga bëgg. Euh, gis nga ñu boole élection. gis nga Abdoulaye Wade. waaw. kenn gënu koo xarañ ci politique. ba mu ñëwee lii ma wax loolu la doxal. waaw mooy couplé découplé jamonoy couplé découplé. jeex na xañ na lee bon règle de jeu bi ni mu demee woon jamono yooyu ak léegi constitution bi ni mu demee ak léegi bokkul waaye li ma la mën a wax mooy li fi ak loolu amul liyee xewaat rek parce que signes yaa ngi daw. <laughs> kon problème bi am fii ci assemblée bi. mooy mooy xew ci collectivité locale yi rek. kan moo fi mos a feete ay ay mi kii nuñ koy tuddee ti bilan mi man mosuma ko fi dégg. lu tax ñu koy def. moo livre blanc yooyu. dafa am ko fi doon fête tey bilan mi. ah mais xam nga ko kay nga naan ma ni ma posé ko kan moo. kan moo fi fête man kay dama bëgg xam. waaw mani mani xam nga mani. imam journaliste nga. <laughs> waaw mais bii nag daf ma rëcc. bilan mi mandat. mais bii daf ma rëcc mi mandat daal man maa ngi koy soog a dégg. waaw ba pare nag di attaquer état. waaw ñu dem rek. imam léegi mu leer. imam jindi ma. kan moo doon féete. waaye maire bi fi taxaw di féete mi mandat bàyyi Samba ma ak moom la. xam non boobu daf ma échappé. daf <laughs> la xam nga li ma la ah. wax waaye li ma la mën a wax moom mooy. Ah, alhamdulilah mi mandat c'est bon. mais de toutes les façons. kan moo fi féete bi. on verra Diop gindi <laughs> gis nga euh, am na lu wolof daan wax naan euh, nii laa mel nii laa mel taxul ma gëm xaw ma nu ñu ko waxeeti ci wolof. defal ñu gis. boo boo xaw ma nu ko waxee te am na ñu ko jigéen ñi daan waxee. mais li wér te wóor ñay dem di def conférence de presse di présenter ay livre blanc pour gàttandu li Ousmane ko wax. ñu tey ñu ngi ci guddi gu bët setegul de. ana livre blanc yi. livre blanc bi ñu ko présenté ba pare anim. ah waaw livre blanc ba ca bés ba la yem moom. dégg naa sax génn nañ livre rouge. <laughs> Ah, mais dégg naa livre rouge boobu noonu benn page la. waaye bàyyi tooñ waaye benn page waaye rek. gis nga tey xam ko combiner sax. tey lu mu mënti demee rek. Euh. wax na wax boo xamante ni message bi rek. doyoon na sëkk. Almaami Sow nee na il nous faut de nouveaux maires il faut ñu am ay maires yu bees. Almaami sew bëgg naa la laaj. lu tax lu tax nga bëgg ay maires yu bees. moom ni mu ko demandé la ko ñeneen ñi demandé. waaw yow lu tax nga bëgg ay maires yu bees. mais c'est c'est que. c'est parce dañu am régime bu bees. waaw régime bu bees sax n'explique pas. solo solo gant bu bees. waaw jub jubal jubbanti. foofu li dëng. ba da yaay mu dugg ci biir ba weex ci xat. non dama ne da àgg na ci au niveau maire yi maire yi. mani moom la ñuy waajal. c'est que Samba. li imaam wax dama ciy d'accord. su boobaa xam ciy d'accord. da xam ndax jub jubal jubanti ma nga fa wala déet. xam nga imaam imaam li wax dama ciy d'accord xam nga. xam nga jeudi bi passé doguma la. lañ fi def émission. Mhm. mais émission boobu ñu ngi ko partagé yéen da ngeen koo def rek. ki yor seen affaire xaw ma nu ñu ko tuddee. ti digital ki yor vidéo yeeg affaire ki ñuy tuddee fuuti yu. ci ñoom. waaw génn démentir li ngeen wax te li ngeen wax te li li jaane wax xaw ma jaane la. jante jante jante li mu wax loolooy dëgg. Mhm. mais après tout tey monsieur le maire wan na ni moom moo juumoon parce que bi ñu demee le maire Cheikh Gueye moom moo jóg annoncé ni école bu nekk am na 300 millions wala am na école bu ñu defee. comme euh, fële la nu ñu koy tuddee ci wetu Mamadou et Binta école Adama Diallo CS Adama Diallo ak ak euh, école bi ñuy tabax Grand Dakar xuma ñaari tali mu ne bu ci nekk c'est trois cent millions mais bi mu ko waxee moom Cheikh Gueye ba pare monsieur le maire moo jóg ne noo juum nga Cheikh Gueye c'est sept cent et quelques millions léegi sept cent et quelques millions yooyu moom